ak agent question bu ma laaj comme daam dañuy joxe xaalis kaaf dañuy jox xaalis que dañ koy investir ci euh, infrastructure mais est yaakaar nga par exemple il a deux ans on n'avait pas de stade est-ce que tu vous xaalis boobu yëpp mu ngi dugg fu mu war a. fu mu a dugg a ah, loolu itam jar naa laajte. Abdoulaye ñu jeexal ci loolu. Mhm. damay démarrer rek pour dire que la vocation de la fédération également c'est pas de faire des infrastructures loolu c'est du domaine de l'État. Mhm. mais fédération bi mu demee ba xam ni infrastructure yi dafa manqué Sénégal war si dugal loxoom la fédération a commencé par ses propres centres je cité léegi centre Guérémou j'ai cité centre Jambar mais la fédération sur ces fonds là a refait le stade Maniang Soumaré de Thiès sur ces fonds là a refait le stade la Dior de Thiès aujourd'hui le stade la Dior de Thiès est géré par la fédération mais pourquoi defuñu si. xaaral stade amitié bi stade amitié fa laa ñëw. waaw da nga yaakaar la fédération est en train de refaire sous ces fonds là le stade Demba Diop. le stade Demba la là nga fay gis ne. Hmm. c'est la fédération qui est en train de le faire dem nañ fa keroog on a vu que les travaux avancent. Hmm. la première partie va être livrée au mois d'avril ñu commencer du football. en continuer di def l'autre partie donc la fédération est en train avec cet argent là d'investir sur euh, dans les infrastructures xëy na nag nit ñi duñ ko xam quoi on ne communique pas xëy na su ñooñu wala yéen bu ngeen ñu woowee da ngeen ñuy wax équipe bi nu mu demee jeu nu mais du ngeen ñu laaj si les réalisations de la fédération la fédération est en train de réaliser la fédération est en train d'avoir même une vision prospective pour faire un grand siège de la fédération actuellement dañu dem ay location bàyyi ko moo xëy ay sa bàyyi. non non non non yow <laughs> donc euh, pas mal ñi ngi si de ñu ngi si domaine boobu c'est pas notre vocation. mais ñi ngi jël xaalis boobu di ko investir nit ñi nag xëy na xamuñu ko bu baax. mais on a fait on est en train de faire Demba Diop on a fait Lat Dior on a fait Magnan Soumaré on est en de moderniser nos centres également. Mhm. on va faire. si at yii ñu jëm wala at bii ñu jëm un siège fonctionnel de la fédération et un grand